risque que ñu jàpp ne ci aimes te victimiser. man ma laaj wala. waaw déedéet. dama nekkuma di ko courir <laughs> nekkuma di ko courir parce que nekkuma di victimiser wu. xawma loolu xawuma tappale may mun a xawma ko su fekkoon ne ci loolu la nekk kon du ma toog fii di waxtaan ak yow. est-ce que nangu nga réalité bi. non déggoo dama ne su fekkoon ne tappale moo may yëkkati sama dund kon duma ma tey di wax ak yow fii njàmbaar fit. bëgg xam-xam xam suma bopp moo tax tey ma toog fii nekk honorable député bëgg a nekk président de la République du Sénégal quelqu'un ki se victimise ne mérite pas d'être président de la République du Sénégal ku amul fit il mérite pas président de la République ku mënta jéggale jëllale mérito woo nekk président de la République du Sénégal ku mënta am arme contre ton adversaire téye ko waroon nekk président de la République du Sénégal xam lu tax un président de la République day xëy ñu indil ko café muy ndékki am toutes les fiches de renseignement devant lui xam ku ne ci li nga nekk xam ku ne ci li nga fanaan mën na ko xam dañ naan c'est l'homme le plus renseigné mais kooku dafa war a nekk koo xamante ni dafay am capacité jéggale dafay am capacité baale dafay am capacité xam safaan ci nit mën ko wanaasu doo ko wax sax sa soxna wala sa borom kër kooku mooy président de la république mais man kooku laa bëgg a doon ëllëg moo tax mënuma nekk ci lii ngay wax ni te ku ci ne bëgg loolu ku ci ne bëgg loolu mais li may ñaan mooy sénégalais yi bañ la bañ la wóolu. alors ñu dem balaa ñuy dem une petite parenthèse balaa ñuy dem ci affaire dialogue bi euh, dañ lay yow da ngay wax avec des références euh, islamiques. Euh,